kontaan nam daan mel mel na ni macha allah yal nañu yàgg a fekke ci barke Seydina Mohamed ànd bi dafay yàgg dañ cee kontaan booba maam Faati Mbàkke mii di mag juddoogul ak Baye Seex kon ñun luñ fi def rek dañ koo xeeb wóor na Seydina Mohamed ndax kii mooy sunu wéeruwaay waaw soxna Ndeke mii mooy sunu wéeruwaay ak sëñ Abdou Mbàkke sunu yaakaar tey ak ëllëg ànd ak yéen mënu jëkk a yeewu mi ngoog moo nuy jëkk a yeewu moo nuy jëkk a ñu topp ci ginnaawam macha allah lu baax lu nekk loolu da koo xam da ko judduwaale ci kër Cheikh Ousmane la woon ba nuy ànd ak moom booba ñëwul ci kër gi macha allah waaw à part wi dara jeexu fi ginaar yaa ngi nii mis wi yaa ngi nii laax bisaab yaa ngi nii ak sipax pax yeeg ñoom seen ak laax bisaab yi macha allah maalaw yaa ngi nii géwal yaa ngi nii laaw la cat waaye buréel bi ñëwagul da teg sa baaraam waaw na kita pa teg sa baaraam ba ca kanam nga dellu si waat fekk ñu fi macha allah. am di kon fi ne affaire yi ñor na fi mu ne nii. ah kon xaaral ma coppati xool ba xam ah waaye kii kay tarkal la ah tarkal la. kon nag miss bi yaa saf na de saf ànd ak Touba Argentine TV ñi ngi fii ci kër Serigne Cheikh Abdou Mbacké ibnu Serigne Cheikh Hadi waxtu wi tembe nag ñu tolloog war a yóbbu li nga xam ne moom moo di bernde yi ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di eh, ñooy gan ñi nga xam ne ñoo ñëw ci magalu Daarul Muxti eh, te ñëw nekk fii ci kër Serigne Cheikh Abdou Mbacké fii ñu taxaw nag eh, ñoom ñoo yor wàllum li nga xam mooy michu yi gis ngeen li ngeen jàkkaarlool moom moo di xar yi xam naa ne kalaasu góor a gi moom tarkalla su ko defee kon suñu am di yow yaa fa mel ne yaa jiite waañ yu nga xam ne ñoo yor wàllu miche yi ya ci aju ginnaaw bu ñu la nuyoo ndax mën nga ñoo dellu siwaatal ci mbir mi waaw mbir mi de ñoo ngi ci euh, ngir sëñ Abdou ak euh, yaa soxna Ndike lii lépp ñoom ñoo ko waral macha allah lépp doy na te at mu jot ñun ñoo koy jiite ah di ko ko defal nii te dara taxul nag lu dul bëgg gi ñu bëgg ak fim ñu teg moom sëñ Abdou ak euh, soxna Ndike ñu dañuy jóge ba njàmbur rek rek ngir defal ko nii ak ay ganam. ay njàmbur njàmbur ay njàmbur njàmbur lan waaw danañ mis fi fukk suba gi ngoon gi fukk mu nekk mu nekk bay. waaw waaw suba ngoon waaw añ ak uh-huh. waaw moom lañuy def nii euh, ba mu rafet nii macha allah. waaye ay njàmbur njàmbur lan quoi. Ah, Louga lañ jóge lii mooy suñu liggéey quoi mis yu rek waaye nag waaye nag ñor na xomm nag waaye nag duñ ko defal kenn ku du sëñ Abdou waaw ndax man moom damay liggéey pëna waaye sëñ Abdou nag moom moo ma jaral ba sama lépp ak waaw ak soxna ndikee new tegal ko ci yoon waaw ma ci am nag mbégte di ci kontaan di ko defee nag xol bu sedd di ñaan nag moom tam ñu ko fekke ko ay ati ati at te lépp luñ ci yaakaar rek donc am ko ci quoi ak Touba Argentine TV fi ci kër Serigne Cheikh Abdou Mbacké ibnu Serigne Cheikh